pour mën a di gërëm di sant tamit askanu Sénégal. Mm. parce que fu que ñu ñëw woté nañu fu nek pour mën ñu massou dernière élection présidentielle sénégalais qui ci une majorité 54 dafa amone luñu tannone mm-hmm. parce que dañu amone yaakaar que lepp plus jeunes leen digoon day am manam séparation des pouvoirs euh, bonne gouvernance la gestion des deniers publics euh, respect des droits humains. daanaka ci gàttal dafa amoon lu ñu woote woon ñoom mooy jub jubal ak jubanti du noonu. Mm-hmm. dem ba ba ñu nekk suñu meeting d'ouverture yéen ñëpp gis ngeen ci internet ay ñit ñëw ba suma buntu kër yàq foofu ay tablo yàq fa ay oto taxaw suma buntu kër di fa wootee fitna mm-hmm. maa ngi jégalu nag ci kàddu yi. ku yep rek da nga fekk may nelaw du ma cokkaas kenn wax luma na nar wax ci yarak ak teggin ñoom nag comme ñom def nañ sen stratégie moy lu tubaab di woyé la stratégie de la lâcheté moy xara ay 4h du matin ñow song ben siège bu amul ben sécurité parce que pour ñun ñu guerre ñun pour ñun siège dañuy am siège pour mën réunir ak suñu caravane ñu mën am fuñu ñuy déparé saa yi bu ñu jeexalee caravane bi ñu am au moins fuñu ñu délu ci waté lolu loolu moy siège pour ñun guerre amul pour ñun lu am mooy xëccoo te xëccoo fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi wante nag xëccoo buy dem ba di ñuroo leneen kooku ñaaru rek dañ ko mën a def ngeen même ma wax ak askanu Dakar seen yaakaar tas na yéen a a fajal seen bopp cette situation du ñun parce que ñoom heure bu may wax nii dañu tiit mais comme ñoom ay expert ci manipulation lañu ñu ngi jéem a xool lan la ñuy def tey ci guddi amaana sax ñu dem taal seen siège pour jiñ ñu ko foofu lañ toll ak ñoom su ma baat ci kaw képp ku ma déggal képp ku déggal coalition sàmm sa kàddu yónnee kenn fenn santuñu kenn dara fii àdduna la te politique kenn du ko yóbbu àlaaxira may sàkku bépp coalition bu ñu romb ci élection yi waa sàmm sa kàddu yan lay waxal bu len togn bu saga ku len nak ngen ngen bay ko ak yalla